yi ak Serigne Saliou Seck musiba dëgg du ci bopp borom la tax ñu wax ko te itam te tax ñu war koo gëm moo di ne jàngoroy coronavirus ja feeñ ca réewum Chine wàll si na ba ca réewum Italie l'observateur moo ko wax ubbil yéenekaay bi journal Uri angle corniche bi ne kilifa ya sàllo wàllu wér-gu-yaram ca réewum Italie ñoo xam ne ni jàngoro ja feeñ na fa ba laal lu ci téeméer ak fanweer ak ñaari doomu aadama Lombardie di dëkk bu nekk ca Italie nga xam ne moodu moodi Sénégal yu bëri fa la ñu dëkkee lu tolloo ko juróom-ñett fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama jàngoro ji dal na leen ba tax jamono ji gox boobee di Lombardie l'Observateur nee na dañ koo mettre en quarantaine ba noppeet mettre fa en quarantaine lu toll ci ñaar fukk ak ñetti junniy doomu Sénégal Pape Diaw mi nekk coordonnateur APR ca Italie di xamle tiitaange ak njàqare ganu nekke lu soree lool ak njàqare moo di jàmm lu ni mel lan nemmeeku ci diggante njiitu mi ak njiitul parti réew mi taxit daanaka yéen nu xëyandool ñoom ñëpp l'observateur las les échos vox populi source a enquête le quotidien Walf quotidien ba ci le soleil national yéeni kaay Sénégal ne démb maison du parti socialiste ga nekk ca Colobane fa la waa PS doon fàttalikoo ndem si yàlla Ousmane Tanorien, Dieng ñu bëri ci way politique yi demoon teew fa ba ci di président Macky Sall yéeni kaay bi ne loolee nag tekki Ousmane Tanorien, homme d'état dëgg la woon ndax ba ni fi ngi le quotidien la xew démb ca ndaje min ko jagleele journal bi boole ca fésal président Macky Sall bu mu joxanteel loxo ko président Idrissa Seck ñu ànd di reetaan ba kekku las yéene kaay ne dëgg la président Macky démb li mu xamal Idrissa Seck moo di ne réew mi di Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk kon nag kenn ci ñun waru cee réeroo kaay bi ne lii moo tax ñu wax ni mu Idrissa Seck di président Malick Gakou ñoom ñëpp njiitu réew mi di président Macky Sall da leen doon dragué les éco lu ci man di am daal Ousmane Tanor fexe na ba dajale président Macky Sall a leen fa ñoom ñaar muy Idrissa Seck ak Macky grand place samp laaj grand place samp laaj li ñuy wax naan Idrissa Seck ak Macky Sall kompolo réew mi loolee nag bu nekkoon dëgg liy dëgg kay Mahammed Boun Abdallah Dionne da ni moo di ñaa waxati rawatina susu aane li mu wax ca grand jury bay xew ca RFM la ko waxee moo di ñaa dani Cheikh Omar Anne mi ñuy tudd lu bari koppar ca jamono yi muy jiite kuddu la mu wax ni moom la jënde poobar jamono jam fay nekke firndale ci ndax nag moo di ñaa nee na Cheikh Omar Anne koppar ya mu teg ci taabal ji waxuma la jëndal ci étudiants yi poobar waaye mënoon na cee jëndalaale askan wi yeewoo ci diwaanu ndakaaru géejawaay ci ndakaaru la nekk encore géejawaay toujours géejawaay direct info ne njombe lu rëy amaat na ca géejawaay yéenekaay bi ne Aliou Sall jaay na mairie bu géejawaay waa Auchan luy tollook benn milliard ci xaalis CFA Ablaye Mbaye nekk adjoint au maire ne mairie bu Géejawaay kenn jaayu ko waaye dañ koo luye ndax nag moom mi topp ci Aliou Sall li mu xamle moo di ne danoo yore ñaari bâtiment exclusive yéene kaay ne cay Géejawaay Babacar Mbaye Ngaraaf ci direct news ne Aliou Sall fa mu jëm ak waa Géejawaay ndox du fa am teyit bu Aliou Sall xëyee xëy jaay lycée Seydina Limamou Laye ba nekk ca Géejawaay wala mu jaay police bu Géejawaay bu mu bett kenn moom Aliou Sall magam moo di président Macky Sall bés ni tey la ko askanu Sénégal falaatoon loole di tekki ne atum lëmb bi mu toogaatee ci bopp réew mekk léegi waaye nag enquête mën a def ponum piir la dàq na pon waaye pon dàq na ko neexum ngont xam fooy fanaanee ko gën Kémi Seba mi gont woon teer si ci réewum Sénégal am ngontom neexul ndax nag léegi ko nee na dafa wàcc ca aéroport international Blaise Diagne rek police teg ko loxo xaw tuutu loxo dem gémmiñ démb ca park an Vox Populi ne ca parc an benn waay bu fay liggéeyee la fa benn ca gaynde ya bëggoon a lekk eh, eh.